mané ne sallallahu alayhi wa sallam goor bu gën ci goor ñi bu jabaram j'ai une dame exemplaire donc suma ma sargalee ñi yaakar nani? ce n'est que li nga xamné mom momo war motax ma tey sargal jigéenu mbaaw mais à travers sargal Bima sargal jigéen de mbaaw ci profité pour tontu ñent ñi nga ils ont essayé de mobiliser Pikine et ils ont échoué en tête Pape Omar Sar, Sarr Alassane Sall Sonko ils ont essayé de mobiliser Pikine ils ont échoué ils n'ont pas pu réunir 300 personnes. Nous avons aujourd'hui réuni plus de 3000 femmes ici à Mbao. Je pense que li nga Fanny, où l'opposition a tenté en vain de réunir 300 personnes, je pense que la messe est dite

suba def six ans à la tête de la magistrature suprême ces six ans sont remplis de succès et de réussite les six ans du président de la République sont éloquents en termes de résultats le président nous avait promis le Yonou Yokouté. il nous a déroulé le plan Sénégal émergent le PSE est une réalité Président, la gouvernance sobre et vertueuse est une réalité. Président, le social est une réalité parce que vous avez décrété 2018 comme année sociale. Sur le plan de l'éducation, effort yi nga gouvernement du Sénégal mon koy def sénégalais yépp ci ñi nga xamante ne nii ñoo waral bés bii tey muy sama jigéen ñi jigéen ñi maa ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk ci turam ak santam nee naa leen jigéen ju ne mën naa jaar ci sa tur benn benn waaye nag waxtu wi moo ko mayewul ba tax na maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam jigéen ñi nee nañ ñu ngi nuyu le cordinateur de la commune de Mbao Abdou Karim Sall le coordinateur des cadres du département de Pékin, Abdou Karim Sall, le directeur général de l'ARTP, Abdou Karim Sall, ah, qui nga que vous représente le fils président Macky Sall Abdou Karim Sall. le directeur des directeur. président Macky Sall Abdou Karim Sall. jigéen nous nous ñu ngi lay nuyu ah sama kaddu gi may yëkkati ci turu Abdou Karim Sall jigen ñi seen yobante bu ñeuk nee moy ki nga xamantene ni mom nga ñu tanal tànnalatiñu ko muy madame la première dame Marème fay Sall Abdou Karim Sall président Macky Sall fekk na la ci social Abdou Karim président fekk na la ci social ku ñew fi xam na yow reelir le président Macky Sall rek mo la ñor jàppale président Macky Sall rek mo la yor mo la ñor Abdou Karim Sall sa mbébét yëpp deuxième mandat la أقصد من الموضوع صامر